gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax may woo patriotes yi rek may woo patriotes yi et que aussi ñu comprendre ne l'heure grave fi ñuy wax ak yéen nii benn but rek la ñu am mooy dem jëli président Ousmane Sonko këram Ziguinchor bari na yëngu-yëngu patriote Ziguinchor yi foo leen mën a nekk yéen ñëpp il faut rallier le domicile du président Ousmane Sonko ñoom ci ay tournée film lañu nekk nekkuñu ci procès ils ne sont pas en réalité nee naa leen ci ay gént la ñu nekk ndax ñun xam nañu kan mooy juge bi même juge bi moo relaxé woon kii nga xam ne moom mooy Sitor Ndour xam nañu ki nga xam ne ñoom ñooy ñaari accesseur juge bi xam nañu ñëpp on connaît plus que qu'ils savent dama ne relayer la la maison président Ousmane Sonko ñii ci ay caaxaan la ñu nekk les sénégalais il faut rallier la maison de Ousmane Sonko yéen ñi nekk Dakar ngeen génn jëf génn jëf moo jot BRT ba yëngu na TER ba xam ngeen loo leen def vous savez ce que vous devez faire le palais de la justice guddi mi ngi nii baax na balaa juge di génn ngeen kar leen ci buntu bi sénégalais bàyyi leen négocier Dakar amatul force de l'ordre Dakar amul alkaati Dakar amul force de l'ordre nañu génn ñu defante ko ak ñoom rallier leen l'entourage justice bu ñu génnee ngeen jëflante ko ak ñoom Sénégal nañu am fulla Ziguinchor na jeunes yi rallier Sonko il va prendre le président Ousmane Sonko en otage seen procès bi ce n'est pour nelawal xel yi c'est tout procès bi du procès waxoon nañ leen ko demb nee nañ leen sénégalais yi atte nañ lii ba pare dara beesu ci dara beesul li ngeen di dégg lu bari ay intox ngeen di dégg dinañu def ay fausse information diw génn na wala diw nee na diw nangam na ma diw nee na dugal na ko fii màcc na ko fële yëngal na ko suñu yoon nekku ci déedéet ñun li ñu intéressé mooy benn doom bu jigéen moo jóg mu war a mën a nekk sama doom sama rakk sama lu ne mu ne dañ koo siif te génnee nañu preuve yooyu yëpp xam nañu ne amul dara lu fi xew ci siif waaye bu ñu sàgganee ils vont cueillir et kidnapper le président Ousmane Sonko. Rallier la maison du président Ousmane Sonko. te bii yoon il faut prendre des otages comme ils vous prennent en otage jël ay otages dama ne na fépp yëngu ci biir Dakar ak Ziguinchor ak Sénégal dama ne soxlawu dajaloo ñaari nit yéen a ngi Tambacounda xam ngeen fi ngeen war a dem. juróomi nit Kolda xam ngeen fi ngeen war a dem Vélingara xam ngeen fi ngeen war a dem que les Sénégalais arrêtent amalgame mais Dakar vous attendez quoi vous n'avez même pas de policiers dans la ville pas de gendarmes pas de militaires lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar vous attendez quoi sénégalais yi nañu jël suñu ay responsabilité nañu génn ñu jàmmarloo ak Macky Sall loolu mooy dëgg arrêté amalgame ci suba ba léegi yéen a ngi seetaan loo xam ne xamoon ngeen ko ba pare ils ont entraîné une fille pendant deux xam ngeen lan mooy movie scénario xam ngeen cinéma lan la cinéma xam ngeen lu koy doxal da koy jàng da koy étudier cinéma tu étudies les scénarios na sénégalais yi génn am fulla ak fayda résistance génn leen résister que les sénégalais sortent Dakar BRT bi yëngatu na mais doyul BRT bi yëngatu na doyul na fépp yëngu dama ne na fépp yëngu Dakar na fépp yëngu Dakar na fépp yëngu laa wax Ziguinchor allez rallier la maison du président Ousmane Sonko bu leen leen déglu seule la lutte libère nous on a déjà décidé ñun décidé nañu ba pare li ñuy def on a déjà décidé ce qu'on va faire ñun xam nañu ne ay bandi lañ ko sekkal Ziguinchor dem leen rallier la maison du président Ousmane Sonko ils veulent kidnapper le président Ousmane Sonko c'est tout ñoom xam nañu ne ci caaxaan lañu ne sénégalais yi xam nañu ne ci caaxaan lañu ne adduna bi yëpp xam nañu ne ci caaxaan lañu ne ils sont dans la manipulation génn Macky moo waratul dellu si waat Sénégal Grand Yoff Ngor fépp ci senegal nañu génn ñu yàkka ñu ñu ak ñoom Sénégalais yi sortons et faisons face Ziguinchor dem leen rallier kër Ousmane Sonko bu dara manqué bu dara sedd ñoom xam nañu ci lu ñu ne te ñun xam nañu ci lu ñu ne te incha allahu rabbi duñ ci am ndam ñun xam nañu le président du tribunal et les deux ñun xam nañu lépp on connaît xam nga nit waxul waaye wax na on connaît l'ami de Macky Sall xaritu Antoine Diome xaritu euh, euh, euh, waa ji Gaye Doro Gaye ban Sénégal ngeen ne vous êtes dans quel monde yéen kan ngeen di foye kan ngeen di foye vous blaguez avec qui allo allo allo allo allo allo allo allo allo allo. allo. waaw si sa nga waaw da ok vas waaw vas ci suuf waaw maa ngi ci suuf. demeewul nenn bu dul turne ay film ci suba ba léegi ñu ngi ci tourner ay film rien rien amuñu vidéo amuñu dara. li ñu bëgg a def sonko la ñu bëgg a dem jëli këram jugé nañ ko par contiment loolu du wax xam nga par exemple il faut ñu xam ne que le le moment est maintenant pour faire face à ces bandits c'est pas le moment de négociation parce que li ñu doon wax dossier bi bi mu tàmbalee ba léegi loolu moo am amuñu benn firnde amuñu benn preuve bu bees indiwuñu dara lu bees nga jël El Hadj Diouf golo bu saram waaye yow jéggal ma Sénégal ba ñu leen ne moom mooy atte moom moo nekk avocat rek ngeen xam ne y' plus de sérieux il faut ngeen ànd ak seen sago dama ne na sénégalais yi ñu dem jàmmaarloo ak Macky Sall Dakar entrer dans la danse Kolda dans la danse Tamba dans la danse moom ñoom ñu ngi ci mbalax ba pare na ñëpp dem kër Ousmane Sonko. et faisons face Ousmane Sonko wàccoon ak ñun de Sénégalais yi Ousmane Sonko wàccoon ak ñun c'est à nous de si on va vraiment sacrifier notre fils ou on va faire face génn leen na génn dem amul dara lu fi bees amul dara lu fi bees amul dara dara lu bees ci dossier bi dara ñoom xam nañu loolu xale bi juddu démb sax xam na loolu na ñëpp génn balaa muy trop tard gis nga bis buñ fi sàgganee ba ñoom ñu atteindre ñu ba ñu jàpp le président Ousmane Sonko Mamadou Dia fàttaleku leen ko ngeen fàttaleku Cheikh Anta Diop ngeen fàttaleku Omar Blondin Diop fàttaleku leen yooyu sax sori na fàttaleku leen suñu jeunesse bi yëpp ñàkk seen bakkan ñii ay yéeféer lañu ay reykatu nit ay naankatu deret juge yi ñu dajale nii ay xaritu Antoine Diome ay nit yoo xam ne Antoine Diome xam na lu ma ne la du lépp la mën a wax en ce moment ñoom xam nañu ko dof-dof loo leen neex na sénégalais yi jóg et faire loolu mooy dëgg y a pas de sérieux dans notre pays amul sérieux notre pays n'a pas de sérieux na ñëpp dem tribunal ñii bu ñuy génn ngeen mais attendez lan moo gën a neex ngeen am embauché ngeen ngeen embauché leen foofu ci tribunal bi ñuy génn molotov yi di naaw mais attendez nañu am fulla waay nañu am fulla asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.